jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy vidéo jërë ngeen jëf mbokki internet RTV Dakar ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di am kontaan saa su ci teewlu bu ngeen ñuy teewlu di la wax ni yow mi seetaan nga abonné te bës cloche notification bi ngir ngay am lépp luy bàyyeekoo fii RTV Dakar la chaîne de référence comme ni ñu ko doon defee rek tey nag bi ñu dikk ci euh, mbirum politique. bu ñu nee politique nag xel yëpp dem ci élection euh, locale yi ñu dëgmal mu élection yoo xamante ne si tension bi jégg na dayoo ñu ngi seetlu tension bi depuis ay weer ba léegi muy gën di fës di nekk mbir mu doy waar ak violence bi nga xamante ne si nemmeeku nañ ko ci ëtt politique gi xëy na violence dana am ci politique mais yaakaar na violence bi violence yooyu ñu ngi seetaan mu passé ci weer yi ak fan yi ñu passé mosuñ ko gis ci langue politique gi Euh, te li ko waral nag mooy élection locale yi nga xam ne moom lañ dëgmal te tey jii nii violation bi moo xam muy violation physique moo xam muy violation verbale mais yépp mu ngi am ci langue politique gi ci ñaari cas yépp nag ku ci toog plateau télé ba wax rek wax mu wax boo xamante ni si mën na taalum dëkk mën na taalum réew ci ñaari côté yépp nag ma jàpp ni nag. dontale euh, kàddu gu ñaaw wala kàddu goo xam ne day yee fitna baaxul ci benn côté mais mu ngi rawatee ci ñi nga xam ne ñoo ne ci pouvoir bi ndax ñoom la ñu dénk te ñu ngi seetaan euh, benn vidéo njiitum réew mi monsieur Macky Sall mu wax ni doon bi mu nekkee sax bi mu nekkagul euh, président maanaam bi mu amagul dara sax ragalutoon rawatina kon bi lépp nekkee ci loxoom waaw est-ce que lépp ci loxoom la nekk. man dama jàpp ni lépp mu ngi ci loxo yàlla te communication boobu noonu mën na jur fitna en tant que président de la république waroo communiquer noonu waroo waxe noonu parce que tey jii boo ne lépp sama loxo la nekk rek jàpp nga ni yow kon tey jii lépp loo xamante ni si bëgg nga ko def rek war nga ko mën a def. opposition bi tamit da ngay dégg ñoo xamante ni si dañuy wax wax boo xam ne day yee fitna te loolu war nañ koo daw. buñu delu sé ci élection euh, locale yi nga xam deugmal nañ ko nak man personnellement dama nan élection euh, locale yi man xaaruma ci ab liste xaaruma ci lenen ndax ñu ñëpp ci gox yi lañ dëkk képp koo xamante ni si yaa ngi jëriñ gox yi ñun xam nañ ko ñun ñu fa dëkk koo xam ne jëriñul gox bi ñun ñu fa dëkk xam nañ ko kon na nit ñi am seen fulla ak seen fayda tey jii nii da ngay gis maire boo xamanteni ne si maire yi ju bare sept ans lañ def suma juumut te 5 ans moo doon seen mandat lan lañ liggéey di am fit nan dañuy laajaat gox bi ko xamanteni si yow tay bu élection ñëwé li ngay def moy ñu top nit ñi fu ne nga dem fa bu élection yi passé téléphone sax kenn mënu lako jot gox ba sax duñ la gis da ngay ñëw dem ci dem dem sa kër tëdd wala nga dem dakaaru tëdd japp sa mosu jambour bari la ñoo xamni xamuñu seen maire ben ci man man jaxaw géema jaxaw salum géema dëkk tay ji ni suñu maire biñu tassé won fi duma ko xam duma ñew ba ni med mo fi liggey li te yaaka na mu ngi laajaat nit ñi dañ am seen fulla ak seen fayda mais ñu ci bare bare bare ci gox yi lañ fa nekk mooy njuj njaaj ñu ci bare néew ma mer bi néew ma mer be mais mer yu ci bare njuj njaaj lañ nekkee seen gox yi amul benn njëriñ seen gox kon ñi nga xamanteni ne si ñoo nekk ci ñoo nekk ci ci gox yi xam ñi ñuy jëriñ ñi nga xamanteni si tey bu situation taxawee dénk ñu leen benn dombal tànk mais dañuy jóg jël seen alal seen relation ak seen seen pexe yi nga xam ne yàlla defal na leen ko def ko ci situation boobu ba dëkk ba nekkaat ci jàmm jeunesse bi bu ñu soxlaa ñu taxaw bu jigéen ñu soxlaa ñu taxaw ak yeneen ak yeneen ca li ñuy def defuñ ko ndax dañ leen a fal mais lañ koy def ngir ci dëkk bi lañ dëkk bëgg nañ dëkk bi am nañ cofeel ci dëkk bi ñooñu xam nañ leen gox boo ci dem ña fa dëkk xame nañ ñoo xamante ne si ñu ngi jëf-jëf yooyu ci seen ñax bopp lañ koy lañ koy def léegi nag ki nga xam ne si ñax boppam lay jël di def loolu soo ko dénkee nga dooleel ko kon yaakaar dina ci am mais yow maire boo xamante ne si yow amul la benn njëriñ yow koo xamante ni si yow normalement sept yow normalement cinq nga war a def nga def sept ans te sept ans yooyu nga def nag amul benn benn benn njëriñ boo xamante ne si amal nga ko gox ba nga am fit taxawaat na da ngay laaj ñàkk jom mënut a weesu loolu. ñak jom muntu wessu loolu nit ñi dañu am seen fulla am seen fayda amul ay affaire de liste amul li amul la wax ji moy képp koo xamanteni si yaa ngi ci gox bi xam nga ki nga xamanteni si mooy jëriñ gox bi ak ki nga xamanteni si jëriñul gox bi dara ki nga xam ne mooy gox bi bu taxawee laaj nañ ko ko jox dooleel ko ndax boobaa gox bi dina avancé waaw bu boobaa gox bi dina avancé politiciens yi nag ku nekk xam na seen seen bu élection koo ci dem bureau sax doo ko gis koo ci bind lettre du la tontu kon nag bu élection jubsee population bi nañu am seen fulla am seen fayda ndax nit ñi nag war nañu toll foo xamante ni si war nañu weesu ay nax dañ ñoo naxa naxa naxa naxa nax ba ñu sonn waaye ki nga xamante ne si tey jii dénk nga ko gis ni defu fa dara su taxawaatee di laajaat nga joxaat ko ko lépp loolu daal yaa ko teg sa bopp lépp lu la dal yaa ko teg sa bopp ndax koo xamante ni si joxagoo ko xëy na da nga wax laam-laamee ni kii xëy na joxaguma ko naa ko jox waaye koo jox ba pare mu jëf nga gis kon nag soo yëkkatiwaatee jox ko loolu maa tay la nañu bàyyi xel ni askan wi dañu sonn nañu bàyyi xel ni ñoom dañ leen jox seen budget ñu ci def lu leen neex dañuy jaayi suuf si dañuy def ay njunjaaj yoo xamante ne si dañ koy def seen poche defuñ dara ci gox yi nga xam ne ñoom lañ leen dénk ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen wax ni ngeen gën di wéy di abonné te bés cloche notification bi ngir ngeen di am lépp luy bàyyeekoo fii jëna ngeen jëf ba beneen yoon incha allah jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi gul aboneel ngeen commenté like suñuy vidéo